tey ji bokk na li ci gën a fës ak wàccu liggéey xalifa général bu Medina Baye di euh, Cheikh Tidiane Niass moom mi ngi wàcc liggéey démb ginaaw ba mu làqee euh, juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett ci kanam tuuti dinañ jokkoo suñu ndaw lañu ñu yebal foofu ca Medina Baye am nañ it ci plateau bi imam Cheikh Ahmed Tidiane Konté nekk bokk euh, muqaddam bu Cheikh al dinañ waxtaan ak moom ci kanam lu yaa ci xalifa bi dëddu àdduna tey jile Medina Medina Baye ci euh, boppam sax nag am na xalif bu bees mi ngi wuyoo ci turu Cheikh Mouhamadou Mahi ñas euh, moom nag euh, niñ koy misaalee rek nee nañu nit ku wàcce boppam la ku njabootee ñëpp ku bari xam-xam nataalam ci biir xibaar yi lay doon. beneen ponk ci xibaar yi Mansour Kama euh, jébbal nañ ko sunu borom tey jilee euh, bëri na ay kilifa yu teewoon tey ca levée du corps bi euh, bokk na ci xalif général kullu Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour tey jile ca hôpital principal bu Ndakaaru la amoon na jàngoro jàngoroy Covid 19 ak tolluwaayam fii ci réew mi tey am na yeneen ñaari nit yu faatu ci lim bu bees bi am na ñeent fukk ak ñaari nit yu amee jàngoro boobule Dakar moom la ñu jàpp ba léegi nii fii la jàngoro bi gën a wullee ñaay lu ëpp daanaka juróom-ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ci ay cas askan wi dafa mel ni lépp luñ leen doon tere sax dañ caa delluwaat. Euh, Pape Ndiaye moom ma daanaka euh, ci misaal moom moo nekkoon kii gën a nekk xale euh, ci band Ino ak Alex nañ leen ko doon waxee moom am na benn waxtaan wu yaa bu mu seq ak suñuy ndaw fële ca Tëngéej ginnaaw bañ ko bàyyee ci kaso ba mu nekkoon def na fa ñaar fukki at ak ñeent loolee lépp tënk la mbokki yi nes tuuti ñu yaatal tey ñu dooree ko ak umma islamique mi nekk ci dëcc démb ba léegi ginnaaw wàccub liggéey xalif bu Medina Baye di Cheikh Ahmed Tidiane ñas moom tolloon ci juróom-ñetti fukki at ak juróom-ñett moom moo nekkoon doom ci Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass nekkoon it ñeenteelu xalifam fële ca Medina Baye tey jilee taalibe yu bëri xëy nañu wutali ji foofule wane seenub naqar Aminata Goudia bi moom lañu yebal foofu ca Medina Baye ñàkk ci kanam tuuti ñu jokkoo ak euh, moom laata loolu foofu ca Medina Baye ci boppam am na ay kàddu yu bëree bëri yu ñu yëkkati euh, ginnaaw génn euh, àdduna ginnaaw kon Cheikh Ahmed Tijane Niass ba mu làqoo dañuy dem rek foofu ca Medina Baye déglu yenn ci ay témoignages yu ñu amal foofule. tey na ñàkk nañ kilifa gu mag mi Mawlana Cheikh Ahmed Tijani doon ñeenteelu xalifa Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mi koo xam ne ku baayam gërëm la woon. koo xam ne magal mi mu àndatoon ak ak xalifa bu fi njëkk mi Seydi Aliou Cissé ànd na ak ñoom liggéeyal leen tarbiyo leen te mës ta uuteeg ñoom mës bëgg dara ba yëf yi si loxoom yëf yi bu mu essee si loxoom doxal na ko doxal boo xam ne bu fi bàyyi nekkoon tamit doxal boobu rek mooy continuer liggéey na ko si jaamu yàlla liggéey na ko si mbaax liggéey na ko si lépp loo xam ne dimbale jaam fépp lu jaam soxla sëriñ bi mi ngi siy taxaw. di wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun di wax na yal nañu yàlla yoola suñu musiba di wax na ñàkk nañ lu rëy ci lislaam surtout Medina Baye al xalif Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifa Baye Niass mu doon xalifa boo xam ne lu mu wutu woon si njabootu Mawlana Cheikh al Islam ak ci dëkk bi ak ci payi bi lu yaatu la. mu doon loo xam ne nii damu damu bu rëy la ñu am naqar ak tiis mu doon loo xam ne nii xaaruñ ko woon jamono ji mu doon lu ñu bett waaye dañuy sant yàlla yàlla mi joxe woon moo jëlaat yàlla nañu yàlla may leneen lu gën bi ñaanal yàlla Cheikh maay Ibrahim Niass mi nga xam ne nii moom moo war a toog ñaanal ko yàlla yàlla oyofal ko yen bi yàlla yàggal ko fi moom tamit. ba ci kanam a kanam yaa rabbi yàlla bu ko dara jafe. sant yàlla di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di wax ne yàlla lépp lu mu jël moo ko moom lu mu fi bàyyi moo ko moom damm damm bu mag la ci umatul islam damm damm bu mag la ci alamil islam bi damm damm bu mag la ci tariqa tijaan damm damm bu mag la ci faydu ibrahimiya bi jaamu yàlla la jullit la aarif billaahi la nit ku baax la yii nag buñ ko waxee mooy di tax ñu naan lislaam papa Cheikh tànneef la ci tànneefi yàlla yi baayam gërëm na ko ngërmande yoo xam ne kenn xamut nu ngërmande yi toll ku baax la ku am yërmande la ku bëri sutura la ku dal la boroom xam-xam la jullit la mu di ay kàddu yu ñu Faly Gaye taataanal foofu ca Medina Baye fale la ñuy des ak Aminata Goudiaby bi Goudiaby maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay nuyu soxna Naata. waaw Aminata bi ñu ngi lay fay di la ziar tey jii la xëy foofu ca Medina Baye. ñu mhm. li ñu mën a jàpp rek euh, xañ na mooy ay taalibe yu bëree bëri xëy nañu tey wutali ji foofu li Aminata. dëgg la ni nga ko waxee noonu la taalibe yi fii mu ne ñu ngi jóge fu nekk di commencé di ñëw euh, fi nga xam ni moom moo di Medina Baye euh, foo toll itam yaa ngi dégg jàngi alxuraan yi Euh, fi mu ne nag euh, li ñu mën a jàpp rek moom moo di nit ñi naqar ak tiis moom moo fees dell ci seen ay biir xol muy feeñ ci seen ay kanam ndaxte euh, ñoom ne ñi ki nga xam ne moom la ñu ñàkk mu di Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass kenn la koo xam ne woon ku màgg la ci woon te itam nit ku leen amaloon njëriñ la moom mi nga xam ne nag moom moo nekkoon ñeenteelu xalif Maulana Cheikh Ibrahima Niass moom nag nit la koo xam ne nee ñu dafa ubbeeku woon te itam ku ko soxla daan nga ko gis buñ nag ci témoignage yu bëri mais ñu bi muy gën a nekk ndaw moom moo nekkoon bras droit wu papaam mission yu bëri moom moo ko doon doxal nee ñu sax daan na ko yónni ci dëkk yoo xam ne da daan am guerre nekkee ci euh, dëkku Afrique yi mu daan fa dem doon lijjanti problème yooyu ba mu réglé moom Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass mi nag nee ñu daan na wax langue yu bëri mu bokk ci xasana awsa anglais arabe ak itam yeneen xeeti euh, yeneen xeeti euh, làkk moom mi nag nee ñu itam daan na def lu bëri ci wàllu social dëkku arab ak itam ay juma nee ñu ay juma moom lu mu ci tabax yu bëri bëri la yoo xam ni kenn mënu koo lim moom mi nag xalif la depuis 2011 euh, moom mi nga xam ne nag moom ab xalif la depuis 2011 mi ngi juddu atum 1932 ci Kossy village la boo xam ne diggam ak Kaolack ci juróom-ñetti kilomètres lay tollu ñu bëri nag doon wax ni moom itam baykat bu mag la woon ndaxte daan bay lu bëri ci dugub ak gerte yu ni mel. nee ñu nag àllarba ci ngoon lañ ko fas yéene jébbal boromam ci Medina Baye ci wetu waay juróom bi di Maulana Cheikh Ibrahima Niass fi mu a sax am na ñu ñuy wax ni néew néew indi nañ ko ci euh, morgue bi nga xam ni moom moo nekkee ci grande mosquée bu Medina Baye soxna Mata voilà jërëjëf Aminata Goudia bi nekkoon en direct foofu ca Medina bay daanaka sax ba xew-xew bu tiis woowee amee ba noppi rek ci la ñu tànn ab xalifa bu bees mu di Cheikh Mouhamadou Mahi Niass moom moo wutu kon magam boobu di Cheikh Ahmed Tidiane Niass moom mooy juróomeelu xalif bu bay ñas mi ngi toll jamono ji ci juróom benn juróom-ñetti fukki at ak benn ngeen baal ma moom nag ñu bëri jàpp ni nit ku woyof la ku njabootee ñëpp ku bëri xam xam rawatina ci wàllum islam bi nga xam ne da koy dund saa su nekk moom xalif bu bees bi it ñu jàpp ni moom mooy directeur ñu ne institut El Hadj Abdoulaye Niass nataalam taalam dañ ci moom ak Mamadou Fall. juróomeelu xalif bu cheikh Ibrahima Niass cheikh Mouhamadou Mahi nekk boroom xam-xam bu kenn tablewul xam-xamam fokk natt wees na ko moom mi jiite institut islamique bu El Hadj Abdoulaye Niass institut bi nga xamante ni rek dana dalal ci lu tolloog juróomi junniy ndongo at gu mbooleem xeet yu ne fay ñëw di fa wut xam-xam waaye itam di fa jàngale si cheikh Mouhamadou yi di juróomeelu doom bu cheikh islaam islam coïncidence wala mu nekk juróomeelu xalif bu Medina Baye xalif bu ñëpp ni ku ubbeeku la ku yaatu la ku xam-xamam màcc la ba noppi ku disponible la waxam du ko jàddal loolu fésal na ko daanaka ñu bëri ngi jàpp kàddu yi mu yëkkati woon ci kanamu équipe gouvernementale bi ba muy sàkku ci ñoom nañu dëppoog li yàlla digle dëkk mu ngi nduroog rek ki koy jiite di kàddu yu mu yëkkati woon Cheikh Mahi Niass way juróom bu góoru ko dalal alxuraan daal di koy jàngal juróomeelu xalif bu Medina mu ngi judd ci atum 1939 nekk nit ku ibbeeku teel a mokkal alxuraan ci bi muy am fukki at ñaar ñu xam ko fépp ci àdduna rawatina fii ci sous-région bi loolu tax sax ñu daal di koy tappal mandargay ambassadeur bu Medina Baye. addunaam yépp mu jagleel ko defar ndaw ñi tollu tey ji ci juróom-ñetti fukki ak benn Cheikh Mahi Niass nekk référence nag ci mboolem ñi ko ci Baye Niass ak ci waa Medina Baye. jërëjëf Mamadou Fall dinañ waxtaan ci kanam tuuteeg nu mu gën a yaatoo euh, ci euh, xalif bu bees boobule ak sunu gan lay doon mu di Cheikh Ahmed Tidiane konte nekk muqaddam bu Baye Niass imam ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. waaleykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu soxna Naata ñu di wax li ñu yàlla wax la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla lañ jógee si ñaan yàlla mu yor ñu sunu yàlla wutal ñu loo xam ne gën na di dem yàlla am na lu nekk yàlla ñu ngi nuyu mbooleem ñu ñuy seetaan si adduna bi doon ndokkeel si fet bi ñu jógee waaye di nuyu si musiba bi nga xam ne dal nañu alhamdulilah waa kër Cheikh Ibrahim Niass mi leen bàyyi yare ñoom dafa mel ni dogal bu nekkee fi yàlla lay jógee bii jooyloo ak bii reeloo yépp benn koy nangu loolu la Cheikh Ibrahim daan na wax ida kanat al aqdaaru min maliki al mulki fa siyaanu indi maa yasur wa maa yufki mu ne dogal su nekkee si yàlla lay jógee te ñëpp xam nañ ne si yàlla lay jógee mu ne ñun lii jooyloo ak lii reeloo yëpp benn la si ñun mhm. mu tax ñu ngi sant yàlla si li nga xamante ni def na ko mhm. ndax moom moom moom rek lañ war a sant si loo xam ne neexut mhm. baax waaw yaa imaam wàccub liggéey Cheikh Ahmed euh, Tidiane Niass mu di xalif bu Medina moom la ñuy waxtaanee hmm. euh, tey jëlee say kàddu njëkk ci loolu ndax am na ñu bari jàpp nañ ne du Sénégal képp moom moo ñàkk daanaka hmm. ndax nit ki mu doon moom ci boppam Mawlaana waaw alhamdulilah kalifa bi muy Seydi Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahim du Sénégal rek moo ñàkk mais mun nañ wax Afrique yëpp ñàkk nañ mun nañ wax alamul islami mboole monde islamique ñàkk nañ ndax kenn la woon xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim ñëpp xam nañ wax na si ay poème bi mu koy présenté daf wa fi tariqi najlaaya ahmadun wa ahmadu tamma fihima ma aqsudu mu ne sama yoon bi maa ngi ànd sama ñaari doom muy ahmad muy ki nga xam ne moom la wuutu woon muy ahmad daam ibnu cheikh ibrahim ak ahmad tijaani mu ne sama ñaari doom mu ne lépp lu ma jublu woon si ñoom mat na te moom jubluwaayam ñëpp xam nañ ko ndax moo ko présenté boppam hmm. daf ne wal ummatu qasdi fihimu an asuqahumu ila xadrati albarri rahimi ilahina xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam benn jubluwaay laa am si ñoom ñu ne ko lan la mu ne defar leen ba nga xamante ni danaa leen mun a delloowaat paie yàlla mu baax moom yàlla mu bëri yërmande woon mm-hmm. loolu rek moo doon jubluwaayam kon kii tey bu la neexee nga ne Nigeria moo ñàkk ndax moo doon premier ambassadeur Baye radiyallahu anhu si Nigeria mm-hmm. Baye yebaloon ko fa bind lettre boo xamante ni bu rëy la wane ne sama dogitu res la wane ne sama samratu fuaad la mooy sama meññeentu xol moom laa leen yónni muy Seydi Ahmed Tidiane. gis nañu ni macha allah sax bu euh, hmm. bu gàmmu Medina Baye jotee li bàyyeekoo ci ay mbooloo di euh, jóge foofu ci Nigéria bi nga tudd macha allah. Hmm. nekk na lu am solo. waaw nekk na lu am solo te moom surtout ma këram boo fa demee. si hmm. gàmmu ak lu dul gàmmu làkk yu nekk nga fay gis personnalité yu nekk nga fay gis ñàkk nañ koo xamante ni mun nañu wax ne moo ambassadeur Baye radiallahu anhu nga xamante ni moom la Baye radiallahu anhu yebaloon foofu nga xamante ni lakk yu bëri comme ni ngeen ko présenté léegi daf ko déggoon hmm. ay Yoruba ay Awsa Hassaniya yooyu yëpp da ko doon wax ngir lan ñu mag ñi nga xamante ni dañ ko doon ñëwal ay président ay gouverneur ñu nekk te mun nga ci wax dara rek Jamal Abdou Nasser bu Égypte keroog bi mu génnee àdduna moom la Cheikh Ibrahim yebal pour mu dem jaale ko hmm. dimension am internationale ni meloon ci Bénin ci Cameroun ci Tchad foofu yëpp ci Soudan nekkoon na fa koo xamante ni ambassadeur bu bàyyi la nit ku mag la koo xam ne Afrique ñàkk na mais aalimul islam yi ñàkk na mais bu la neexee sax nga ni nite nite àdduna yëpp ñàkk na muy humanité mm-hmm. mm. ci xilaafa gi euh, def na fi daanaka lu jege euh, fukki at te xalif bu ñëw dañ naan li tubaab di wax empreinte loo xamante ni xaj na moom la fi bàyyi euh, cof nga ci tuuti wax nga tuuti ci ñu ne ambassadeur u bàyyi la woon am na mm. yeneen yu bëri yoo xamante ni nekkoon na loo xamante ni lu ko yitteel lool la moom xalif bi waaw bokkoon na li ko gën a yitteel moom nit la woon koo xam ne li bàyyi radiyallahu anhu rëddee woon dëkkam rëddee woon ko wooteem xadru amu la lii arab di wax amu la baarom cat baarom sax mosu ko see wàcc bàyyi dafa sampe woon dëkkam jàng ak jàngale ak jaamu yàlla ak liggéey discours yëpp loolu la daan wax waaye bokk na empreinte am bokk na ci ansaaru diin ansaaru diin association la boo xam ne bàyyi moo ko defoon yàgg na utal ko récépissé wax ne objectif ansaaru diin mooy nasrul ilm binaau lmasajidi taawunu maa almuslimin alqiyaamu bi mahami dawati ila mooy lan objectif yi lii rek la mooy jàngale lislaam tasaare ko taxaw pour yittey woote si yàlla woote nit ñi ñu dem si yàlla beneen bi mooy lan dimbalanteeg julli ñi beneen bi mooy tabax ay jàkk bi mu ñëwee dafa gën a beesalaat loolu nga xamante ni association boobu léegi bu dëgër ba nga xam ne am na benn fond boo xam ne tey fond bu dëgër la si Madina Baye boo xamante ni loolu yëpp si xilaafam la am Baye bëggoon na radiallahu anhu ndax gan dafa bëri Cheikh Ibrahim étranger yëpp ñoo koy ñëwal. kon soxla woon na këru gan goo xamante ni dana méngoo ak ñi koy ñëwal si xilaafaam imprentam la moom moo ko fi teg. jumaa ji décidé woon na pour yaatal ko ba nga xamante ni procès bi mu koy yaatalee defaraat ko pare woon na ba noppi mais def na fi li ñuy wax bibliothèque boo xamante ni bàyyi ku nekk xam na ni soo ko waxee rek xam-xam la ndax bàyyi gémmi xam-xam lan moo ko wax wala abdu qad laqiya ayn al ilmi wa jaawul isnu bi duni wahmin jaam bi dox na ba daje jëmmi xam-xam ja ndigal jota ñëwal na ko pour mu tasaare xam-xam lu dul lu ñuy werante duñ ko def defle moo tax tabax na benn bibliothèque boo xamante ni ñu ngi ci tabax bi pour mbooleem ouvrage Cheikh Ibrahim radiallahu mu dëppook jamono loolu yëpp bokk na ci empreinte am bokk na ci empreinte am ay jumaa yu bari yu mu tabax comme ni ngeen ko waxee. kenn xamut ci Afrique ak fu nekk su demaat Nigeria da ngay wax ne kii demul foofu noonu pour taalibe yi siyaare ko. Hmm. mais ñëpp ñëw dafa mel ni lu mu am am na yoon boo xam ne nee na li ñu ko fa jox ëpp na ay 1 milliard wala de milliards. dafa la ko bàyyi mais foofu la ko bàyyi moom noonu la meroon nit la woon koo xamante ni joxe depuis jamono Baye radiyallahu anhu personnalité yi Baye daan am yëpp. daf daan wutu bàyyi di leen dalal di nekk nit koo xam ne dafa bul baax nekk ku kii imprimé daal dëgg dëgg Medina Baye mm-hmm. foo xool rek mën ngaa gis ne lii si xilaafaam bi nga xamante ni yàggul presque fukki at la. Mm. def na ko fi radiyallahu anhu. Euh, wax nga ko sànq ci wàllum xam-xam ku wax xam-xam tam xel yi dañuy dem ci ndaw ñi ndax booy duy nit xam-xam daanaka ci tout tànk nga koy dooree gis nañ tam ci at yu mujj yi euh, gis nañ macha allah Medina Baye boo demee da nga fay gis ay ndaw ñu bëri ñoo xamante ni euh, dañoo dugg ci dañoo dugg daal ci mu ngi noonu bu baax a baax loolu tamit bokk na ci li nga xamante ni xaj na ci at yu mujj yi nekk na lu ko yitteel loolu mu def ci liggéey bu am solo yi. waaw def na ci liggéey bu am solo xam nga léegi wax nañ ki nga xamante ni mooy xalifa bi actuel yal na yàlla guddal fanam may ko taw tawfiq muy seydi Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh Ibrahim nga xam ne moom bu la neexee nga ne moom ndaw yi la joxoon boppam ndax xam na ne avenir bu nekk avenir u réew ne nañ réew boo ñëwee bugg a seet réew mi nan lay mel ëllëg seetal ndaw yi nan lañ mel moom loolu la xamoon moo tax xalifa bi si loolu daaray Medina Baye yëpp daf leen dëgëraloon ak fayda bi ndax ansaaru diin boobu li tax mu joxoon ko yitte yépp mooy lan képp koo xam ne nekk nga taalibe nga adhéré wu si ansaaru diin pour ñu mën la orienté si li nga xamante ni moo doon njàngale Cheikh Ibrahim radiyallahu nga xam ne mooy li ma la wax toujours discours am mosul discours ba jeexal lu dul fàttali na ko nee bàyyi lim sose woon dëkk bi lii rek la mooy jàng jàngale jaamu yàlla liggéey amul leneen loolu boo seetee def na si lu bëree bëri loo xamante ni nit mënu ko lim. dem na ba ansaaru diin boobu bi ñu buggee sées bu ñu tabax moom moo leen jox suuf boo xam ne moo ko moom ne leen du ma si yem mais maa leen di dimbale pour ngeen tabax ko def fa place yoo xamante ni formation wu xale la ay daara la xatta transformation boo xam ne jigéen ñi dañ fiy def seeni mbir def na ko foofu noonu loolu yëpp bokk na si li nga xam ne def na ko nit la woon boo xamante ni kiltal jaani bay nii jaani bu diini maanaam côté ruuxu bi ak côté dundinu àdduna bi yëpp daf si taxawoon taxaw boo xamante ni bu rëy la ñu ngi ñaan yàlla fay ko ko gën jaa rafet ji fay. amin amin amin mu nekkoon nit koo xamante ni ku wàcce boppam la tamit macha allah euh, ci digganteem ak yeneen tarixa yi nekk Sénégal ndax euh, bokk na ci ñi nga xamante ni saa su nekk dañuy woote euh, booloo xam ne ñëpp ñoom ñoo bokk benn tarixa muy lislaam digganteem ak yeneen tarixa yi mën nga ci dellu siwaat yaay loolu mën naa ci dem delluwaat dellu bu wér hmm. ay mbir yoo xam ne action wax sax la jëf la ay jëf mun naa la ci jox benn exemple Cheikh di Abdoul Aziz Al Amin def na délégation boo xam ne kenn xamul ñaata oto la ëpp na lu mat 100 oto def délégation pour dem jaali ji ko magam bi mu génn àddu mu dem Tiwaawan dem boo xamante ni dekkalaat na loo xamante ni kenn xamul te teraanga yu nekk la fa yóbbu Tuubaan noonu la meloon ak moom mm-hmm. ci xilaafaam da gis ne ki nga xamante ni moo génnoon àdduna mooy Cheikh Mati lay nga xamante ni doomam gàmm bu jot daf daan ñëw dañ koy jox discours ci suuru gàmm pour mu def benn xitaab foofu pour wane relation yi noonu la meloon te amul benn màggal boo xamante ni jël na alal ju bëri ak nag yu bëri ak teraanga yu bëri ndax moom nitu teraanga la woon yebal ko Touba naka noonu noonu lañ meloon ñoom dañoo xamoon ne li leen yitteeloon mooy lislaam moo tax ñoom noonu lañ doon doxee loolu moom soo si doon wax temps bi yëpp soo hmm. foofu nga koy jeexal wane ne moo relation këru diine yi waxuma relation wu këru diine la woon waaye relation wu benn kër la hmm. ñoom dañoo jàppoon ne benn kër la te mooy kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp surgaay yonent bi lañ moom noonu la meloon ak ñoom dëgg-dëgg loolu moom lu wér la loo xamante ni hmm. ku si laal baaroom rek di nga ko xam foo koy teg. Mhm. ak ci yeneen kilifa yi ah, bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu waxee ci kilifa diina itam am na ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite réew mi rawatina ci wàllu Medina Baye ndax état yi dañuy wax ay waxu projet modernisation euh, cité maanaam diwaanu diine yi wax nañ ci tuuti sànq sax waaye nekk na loo xamante ni tamit moom euh, daanaka xaaru ci sax euh, état bi ndax yaa ngi koy wax sànq ci fond bi ci projet extension juma bi Medina Baye defaraat tamit gis nañ ci peggu juma bi dooroon nañ ko boo ku fay ñëw tamit coono yi wàññeeku et tout ça loolu tam nekk na liggéey boo xamante ni tàmbali na tàmbali na ko. waaw moom mosul bàyyi tànkam si dara comme ni nga waxee état bi noonu la meloon ak ñoom. relation koo xamante ni du xaar état si dara moom dafa gëmoon ne citoyen bu baax mooy loo defal sa réew waaye doo xaar lu la sa réew defal moom noonu la meloon waaye état bi itam fonkoon nañ ko bu baax surtout ma président Macky Sall bii nii ku ko defoon way jur def ko lépp li koy wéral mooy xataa génn àddunaam daf doon topp mbir mi ba ni mu dogee yëg na ko ci saasi la woo porte parole bi muy Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé wax ne ko ministre de l' intérieur naa ko jox naa ko ay instructions ministre de la santé pour ñu taxaw lépp loo xam ne war na si ba nga xamante ni si saa si si guddi gi jël nañ ko ba yóbbu ko dina Baye. Mm-hmm. diggante bi mu dogee ak bi ñu ko yóbbu mën nga wax ne presque matul une heure de temps. loolu yëpp taxawaay dafa jàppoon Pape Cheikh mu nekk papa. Hmm. ndax Pape Cheikh ku ko gisoon rek. Hmm. da ngay nekk da nga voilà comme ni nga ko gisee ci image yi. Hmm. da ngay lii yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee. mu ne walli yàlla dëgg mooy alladina ida ru'u sukira allah mooy koo xam ne soo ko gisee rek fa su nga fàttaliku yàlla góor gi noonu la meloon boo koy gis ci leeraan ak jubam ak mbaaxam ak lewetam da ngay yëg fàttaliku yàlla da ngay fàttaliku Cheikh Ibrahim mu fàttali Seydi Ahmed Tidiane mu fàttali ko mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moom noonu la meloon président noonu la meloon ak autorité yëpp mboolem parti politique yi ak nit ñëpp dafa jàpp ne ñëpp daal ay doomam lañ mu wuuf leen comme ni bàyyi di wuufee doomam. mu njabootee ñëpp. waaw tey jëlee dem na nag ki nga xamante ne moom moo ci xilaafa gi muy Cheikh Mouhamadou Mahi ñu wax ci ki nga xamante ne moom moo fi dëddu rek am na loo xam ne it mën nañ ko wax ci moom mën nga ñoo wax euh, yaay maam ci ki nga xamante ne moom moo toog tey jëlee ci xilaafa gi ca Medina Baye. waaw kooku moom comme ni ngeen portale bi ngeen def. moo nekk nii. portale bi waaw. Mm. moo nekk nii bi mu nekk xale. Mm. portale bi ngeen def rek loolu wane na kan la nitu dimension la boo xamante ni bu kawe la ci xam-xam ba ñun dañuy wax ne moom mooy philosophe bu pays bi mooy philosophe bu pays bi bu xadara bi nga xam ne buy wax doo xam fan lay jëlee waxam ngir xam-xam bu sell xam-xam bu tedd muy nit koo xam ne dafa woyof nga xamante ni moom dafa jël rek njaboote xale yu ndaw yi étudiants yeeg ñëpp moom mooy seen pare nga xamante daf leen jël nitu xam-xam boo xamante ni nitu mbaax la waxuma la moom dafa woyof waaye doo dem biir këram sax pour siyaare ko mooy toog si buntu kër gi pour nga siyaar ko waaw nit la koo xamante ni moom dëgg-dëgg am nañ yaakaar si moom comme avenir bi avenir u ndaw yi la ndaw yaa ngi dugg si faydu bi te moom toujours dafay jàngale nit ñi pour ñu dellu si seen cosaan wax leen kan mooy Cheikh Ibrahim Niass kan mooy Serigne Touba kan mooy Seydil Hadji Malick radiallahu anhum kan mooy kan mooy mag ñooñu nga xam ne am nañ leen Sénégal te nit mënul dem avancer mukk te amul delluwul si cosaanam pour mën a avancer moom noonu lay jàngalee. moo tax nit la koo xamante ni dimension international la am ci xam-xam ba nga xamante ni comme ni ngeen ko waxee ambassadeur la woon boo xamante ni nekkoon na palais Nkrumah Kwame Nkrumah nekkoon na foofu nekkoon na ak borom. xam-xam yu nekk nekk na correspondant sax ay journal yu mag si arab fii nii bu la neexee nga ne journaliste la yoo xamante dafa nekkoon seen correspondant di bind di leen yónnee waaw loolu ay at la nit la koo xamante ne dimension boo jaar rek da ngay wax ne beneen dimension bi mooy li baayam doon def nga xamante ni yittem yëpp loolu la woon mooy alquran Baay radiyallahu anhu wax na ne fal tajcalan xifsa kitaabika alkarimi karaamati ila liqaayika alazim yow yàlla defal wëttu sa téere bi muy sama karaama ba ëllëg may dajeeg yow moom yàlla dimbale na ko tafsir bi Baay doon def magam dan ko def muy cheikh alxaj abdullahi bi ñu génnee ba léegi xalifa bi ak xalifa ahmad daam moom la ko joxon si loxom mooy tafsir di toog fi Baay doon toog di firi alquran di la génneel ay dégg-dégg yoo xamante ni da loolu mooy tegtale ne dajale nga xeetu xam-xam yi moo tax nga man ko moo tax kooku daal dimension boobu la ñu ngi koy ñaanal yàlla tawfiq ayam nekk ay boo xamante ni Baye radiallahu anhu ak diini l'islam dana si siggee ak Sénégal ci barke alquranul karim amin amin eh, yëf yi imaam continuité la ñuy wax eh, ndi tubaab di wax maanaam ku ñëw daal da ngay béy sa waar bàyyi ka ca des ñëw def eh, li nga xamante ni it moom moo ci topp sànq junj nañ ko tuuti it ki nga xamante ni moom moo fi dëddu dëddu doon na yëngatu bu baax ci wàllum social maanaam dim maanaam dimbali askan wi bu baax a baax xañ na ñu bëri sax moom moo taxoon xañ na ñu koy dàkkantalee nenn ni mooy ni nga wax sànq ci ku fi wutu tam ci njaboote ñëpp moom tamit loolu la doon dund dimbali nit ñu taxawu leen. waaw xalifa bi fi jógee moom kooku moom lii arab di wax rek moom day wax ne innama xuliqtu li jabril kusuuri laa li binaa'i xusuuri man dañ ma bind pour ma jañ damm-damm yi waaye du tabax ay pale boo seetee nit koo xamante ne wërsëg bi mu amoon ci àdduna ay milliards jox nañ ko ko bay sonn ci ay addiya waaye moom mësul ko téye joxekat la woon social bu nekk defar na ko am na dëkk bi nga xam ne foofu la way juróom bu jigéen rahmatullahi alayha foofu la dëkk tabax na fa jumaa joo xamante ni lum néew néew juróom bi juróomi téeméeri nit wala juróom benn téeméeri nit xaj nañ si mais tabax na fa hôpital boo xam ne moderne la defar yoon ba dëkk ba def fa ay tool yoo xamante ni daf daan bay di liggéey di bay gerte gu bëri di bay dugub ju bëri di yore ay nag lépp daf ko noon def naka noon kii fi nekk itam yoon boobu rek la jaar ñoom social moom loolu dañ leen ko bindee ba nga xamante ni seen bunt duñ koo tëj ndax Cheikh Ibrahim Niass daan na wax ne sama bunt bii féeteeg mbedd mi mosuma kaa tëj benn bés def na loo xamante ni loolu moo lay wan kan la am na soxna suy jàmbat suy ñëw di sakku mu dajeeg moom si buntu néeg bi moom Cheikh Ibrahim mi ngi sol benn turki bu ndaw soxna si ne ko sëriñ bi laa doon laaj mu ne ko waxal sa soxla mu ne ko lii la ñuy wax rek buur aayu dag yaa aay sëriñ bi laay aay mu ne ko waaw kon jaarale leen ko si buntu gannaaw gi mu dem si jigéen ñi bi mu ñëwaatee si biir fekk ki nekkoon ci buntu bi moo taxu noonu mu ne ko waxal sa soxla mu wax soxlaam mu fajal ko ko ñoom noonu lañ meloon Papa Cheikh dafa daan dem ba dañuy wax ne Papa seex bu amul xaalis bu bari day tëju boobu rek lay tëju waaye bu tijjee rek waaye moom mënul gàntal nit ku am kersa ba bu doon wax ak yow sax dangay ngay génn muy sëb waaye nag bu décision jotee da ngay xam ne vrai leader la day taxaw si kanam jàmbaar jàmbaar goo xamante ni kenn mosul xam jàmbaar goo kii itam noonu la mel ñoom joxe noonu lañ mel kii moom xaalis sax daf koy lakk dafa mel ni dégg naa si preuve bu wóor nee nañ depuis longtemps wax na ne moom mosul téye million bu moom koo xamante ni doomu bàyyi la nga xamante ni milliards yu nekk dañu ñëw si moom mosul téye million bu moom bu ñëwee rek day wax joxe ko joxe ko joxe ko mu ne moom xaalis da koy lakk xaalis neexu ko maanaam ñoom noonu lañ leen yare nitu social lañ noonu lañ dundee yal yàlla taas ñu si barke ki dem yàlla guddal fanu ki nga xamante ni moo fi nekk. amiin amin amiin moom euh, Cheikh Ahmed euh, Tidiane Niass ñu ne nag dinañ ko jébbal suñu borom alxames ci xibaar yi ñu mujjee jot euh, imaam Cheikh Ahmed Tidiane Konté di la sant di la gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi amaana waxtu wi moom moo ñu dab waaye waxtaan wi xëy na dinañ ko wéyal ci kanam tuuti di la sant di la gërëm bu baax a baax say kàddu yu mujj. ñu ngi lay ñu ngi gërëm bu baax TFM di gërëm mboolem lu dalee si kaw. mooy président Youssou ba ci suuf di la gërëm yow soxna naata di wax ne nii rek la ñun daal Sénégal li ñu am mooy sunu mag yi nga xamante ni mooy suñu référence fekk ñu ngi leen di fonk rek Sénégal day baax ñu ngi ñaanal yàlla mm, télé bi yàlla na yàlla avancé loo ko waaye ñu ngi ñaanal yàlla Seydina Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu yàlla na xippee sa baayam xippee sa turandooram muy Seydi Ahmed Tidiane xippee si mawlaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ki fi ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam di nuyuwaale ki nga xam ne mooy représentant xalif bi fii si Dakar muy cheikh Seydi Mouhamadul Amin ibnu cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu di nuyu imam cheikh Ahmad Tidiane Ali Cissé di nuyu itam porte parole bi cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Cheikh Ali Cissé di leen ñoo ñaanal yàlla ñoom ñëpp tawfiq ci barke alquran jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam jërëjëf imaam Cheikh Ahmed Tidiane Konté ñu doon waxtaanee euh, xalif bu Medina Baye mi euh, wàcc liggéey di Cheikh Ahmed Tidiane Niass kon mbokk yi jàppale ne dinañ ko jébal sunu borom alxames bi incha allah ci lay doon ñu woye ci xibaar yi ba léegi wax ci Mansour Kama moom mi jiite woon CNES di confédération nationale des employeurs du Sénégal moom mi dëddu àdduna démb jébal nañ ko sunu borom. borom ah, tey jii de ca sëg ya nekk ca Yoff bëri na ay kilifa yu mag yu teewoon foofu ci hôpital principal ah, ci levée du corps bi ni ngeen koy gisee noonu ah, kii di xalifa général bu kulu Tijaan di Serigne Babacar Sy Mansour moom mu nga fa woon teew moom ànd ak ñeneen kilifa yi diine foofule kii nekkoon premier ministre it di Mahammed Boun Abdallah Dionne ak yeneen kilifa ñu ngi woon foofu teewee levée du corps Mansour Kama jiite woon CNES ñu woy ci xibaar yi ba léegi euh, wax ci euh, Tidiane euh, wax boog ca Tiwaawan foofu la ñuy des nag ci zawiya bu Seydi Haj Malick Sy ba ca Tiwaawan foofu nag am na ab diir muy ñeenti weer yoo xamante ni ña fa nekk di jàng fa la ñu tëju woon ndax mbas mi la ñuy dund waaye tabaski bi tax na ba ñu dem seen kër lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ci ay ndaw ñu nekk foofu di jàng alxuraanu karim ba dem ba wàcce ko ñoom jot nañu seenub lijaasa ba dem Serigne Babacar Sy Abdou Euh, di euh, njool fuuta moom nag mi ngi ñaax waajur yi ñu gën a bàyyi xel ci seenub euh, jàng doom rawatina ci diine gi ak lépp loo xam ne ci ay valeur yu baax la ñu mën koo dugal ci ñoom Cheikh Anta Diop say laa tiir ca Tiwaawan bi mbas mi duggee ci réew mi daanaka lu toll ci ñeenti weer ndongo yi kenn génnul woon ñu tëj leen ci daara ji ñu doon jàng ci ndigalu xalif général de Tidiane di Serigne Babacar Sy Mansour ndongo yi daanaka ci ñeenti weer yi ñu ci bëri mokkal nañu ci alxuraan ñu bàyyi leen ñu dem seen kër waajur ngir mën a julli ji tabaski. biñ ne nañ daara yi ndax Sénégal am na feebar xale yi dem seen dëkk yi Serigne Babacar mu ni man de sama ngor mayu ma may ànd ay njaboot bi ma di leen bàyyi ñuy dem. mu ni ko wàll nañ toog lu fi yàlla indi ñu bokk insha allahu taala ki bu ñëwee fokk xale bi bëgg a seeti ay wéyjuram delluwaat fa mu jugee woon tabaarakallahu bokk ko ak ñoom xale yi nga xamante ni mokkal nañu alxuraan ñu périer leen jox leen ay neexal sëriñ bi at mu jot mu def ko tabaarakallahu moo di ni jox xale yi fi mokkal li toll ci fukki xale juróom-ñett sëriñ Babacar Sy Abdou moom it mi ngi dikk nag ci yar bi nga xamante ni war nañu ko yar xale yi te am njàng rawatina njàngam alxuraan lu am solo la. defaru Sénégal ëllëg mu ngi aju ci xale yi njaboot bu bu njaboot gi teguwul ci yoon rek li ñuy yaakaar ëllëg du tegu ci yoon. sëriñ si nag ñu ci bari nag yëkkati kàddu nag wax na ñeenti weer yi nga xamante ni ndongo yi nekk nañ ci daara yi génnuñu njariñ lu rëy la ndaxte ñu ci bari mokkal nañ ci alxuraan ak xam-xamu diine. te ñoom seen yéene moom mooy fexe nag ba xale yi di jàng alxuraan ak jàng métier ci biir daara yi nekk fii ci Tiwaawoon jërëjëf Cheikh Anta ñu wax ci mbas meek tolluwaayam fii ci réew mi diggante démb ak tey Sénégal wàññi na ñeneen ñaari nit yu faatu am na ñeen fukk ak ñaar yu amee jàngoro bi bokk na ci ñu ministère bi doon topp ak ñi amee jàngoro bi te xamuñu fan lañ ko jëlee jamono ji réew mi jégg na fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn dañuy déglu xayma tey bi ak docteur Mamadou Ndiaye moom mooy directeur de la prévention ca ministère de la santé. ci juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn test yi ñu jot a def ñeent fukk ak ñaar ñoo ci positif ci ñi positif am nañ ci fanweer ak juróom-benn cas contact mooy ñi jële feebar bi ci nga xam ne dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci juróom-benn cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji waaye xamuñu ku leen ko wàll. ci ñooñu nag Almadi am na ci benn Géejawaay benn Kolda am benn Mariste am benn Mbakke am benn et Ziguinchor am na ci benn juróom benn fukk ak ñett si ñi ñu entré woon hôpital wér nañ ba bés ni ki tey dinañu génn génn bu ci yàlla àndee fanweer ak juróom-ñaar ci maladie yi ñu ngi ci service de réanimation ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci bésu démb dibéer ñaar fan ci weeru ut biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa njëkk ba senegal wàññi na fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn cas positif ci ñooñu juróom-benn junni ak juróom-ñeenti téeméer ak benn wér nañ si ñaar téeméer ak fukk ak benn ñàkk nañ seen bakkan mu des ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci loxo docteur yi mbas mi mi ngi woy kon di gën a law ci réew mi ndakaaru sax la gën a lëjal waa ndakaaru ndax jamono ji daanaka ñi ko amee jàngoro bi euh, romb nañu juróom-ñaari junne ak juróom-ñaari téeméer euh, te ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu euh, daanaka màgget yi la mbas mi gën a sonal li tax ñu nemmeeku loolu lépp nag mooy sénégalais yi dafa mel ni lépp lu ñu leen doon tere dañ cee delluwaat ba a takk ay masque lu ni mel Alxasan Ba lañ ci àndal Sénégal ci altine gi mu ngi toll ci fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-benn cas yi nga xamante ni jot nañ leen recensé ñu amee doomu jàngoro ji di coronavirus ab chiffre bi wane ne nii nga xamante ni moom la fi virus bi di lawe Dakar nag nekk région bi nga xamante ni fii la feebar bi gën a bëri lu ëpp juróom-ñaari junni ak juróom-ñaari téeméer ak fukk ak ñetti cas yoo xamante ni recensé nañ leen fi Dakar Ouest am lu toll ci junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk ak benn Dakar junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent Dakar Sud junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak ñett Dakar Nord am lu tolloog junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn Touba mooy ñaareelu bërëb bi nga xamante ni feebar bi gën na fa law mu toll ci juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti cas yoo xamante ni jot nañ leen fa géej Guédiawaye am 501 cas Mbao 390 Thiès 376 cent 304 Kër Massar 225 Ziguinchor 209 Pikine 104 188 Tivaouane 186 Sangalkam 173 Mbour 145 Popenguine 139 Diamaguène 137 Yeumbeul 126 Sédhiou 109 Kaolack 100 Pout 91 Vélingara 78 Goudiri 63 Mbacké 57 Saint-Louis 54 Diourbel 51 Khombol 50 Fatick 37 Bignona 34 Louga 33 boo xayma district yi nga xamante ni moom mooy district yi ñu touché toll nañ ci juróom benn fukk ak ñett patient yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi leen di topp ci biir lopito yi tollu nañ ci ñetti junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett lu toll ci juróom benn junni ak juróom-ñeenti téeméer ak benn ñi nga xamante ni jot nañu wér ci doomu jàngoro ji ñaar téeméer ak fukk ak benn yi nga xamante ni jot nañ ñàkk seen bakkan justement sax ci ñooñu yi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ñu nemmeeku ni mag ñi ñoo ci ëpp ñu doon ñoo xamante ni tey jii kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu wér yaram ñu ngi sàkku sax ci ndaw ñi ñu aar mag yooyu ndax li nga xamante ni moom mooy doomu jàngoro ji yàpp na leen lool. yenn si ay patients itam yi nga xamante ni nemmeeku nañu ne faatu nañu dañuy toog ba seen état critique ñu door a yegg si lopito yi mu doon loo xamante ni problème bu ñu war a régler la. beneen problème bu ñu war a régler itam muy respect geste barrière yi mooy maanaam li nga xamante ni moom mooy takk masque. raxas say loxo ak moytu dendante gi noyel ju jëm ci mesure de restriction yi ñu jëloon ñu gis ne bi mu amee feebar bi dafa gën a yokk ab relâchement la ñu nemmeeku ci askan yi mu doon loo xamante ni nekk na problème ci jamono jooju ñenn ñi ñoom daal dinañ engagé li nga xamante ni moom mooy bataay communautaire jërëjëf Alhassane Ba ñu wax ci leneen muy marché Sandaga bi ñu tàmbalee daaneel démb ci kantine yi lañ ko dooree waaye nag ay com ay commerçant yu bëri kon am nañ lu leen naqari sax naam waaye dem nañu fële ci champ de course muy fañ leen wutal président bu ànd taxawu Sandaga di ñaax état bu Sénégal euh, mu def lépp loo xam ne digle na ko ak marchand yooyu le bu ñu defaraatee marché bi ba noppi ñu bàyyi leen ñu dellu si waat Jibril Jaxate moom moo nekkoon invité ci micro Habib Faye ak Gervais Yaw waaw dañuy sant yàlla rek bu baax a baax bu fekkee ne tey dañ dañuy defaraat Sandaga te ñun juróom-ñaari at ñi ngi koy sàkku nu kon dañuy taal tàccu rek daal di ñaan yàlla nag li nga xam ne moom la ñu wax ñu jëfe ko su bees boo fay dem ak fa nga tàmm doo ko mën a gëm mukk daal site bi rafet na defar nañ ko ci anam yu mucc ayib mais dañoo def réplique gu Sandaga lañu defaat foofu rek parce que mënoon naa gën a yaatu nit ki di évoluer à l'aise loolu la ñuy wax cadre adéquat mais malheureusement ñoom bi ñu koy wut ak ñu koy defar yëpp boolewuñ ñi ci dem nañ sax pour visiter gardien bañ fa fekk ne kenn du fi dugg waaw. Sandaga moom xam nga foo juddoo yaroo fa màgge fa def fa plus de 40 ans. pour nga ne tey da nga koy quitter ça fait très mal au cœur bii dafa góore de même buñ ko fi bàyyoon fii ak cinquante du mos a daanu parce que dañ ko diaboliser woon rek loolu la léegi nag aujourd'hui tey conscientiser nañu nit ñi ba ñu xam ne aussi il faut dire la vérité l'occupation de la voie publique ku fa nekk tamit xamal ne tôt di nga fa jógee tey nag chance la ñu yóbbu la dans un endroit jox la cantine clé en ba pare jox la bindal la Pape Ndiaye bu ngeen ko déggee nag moom bokkoon na ci gang bu Ino ak Alex bu ngeen fàttali ko moom moo ci gënoon nekk xale ñu tëjoon ko kaso waaye yàggul dara bañ ne suba la tabaski bokk na ci ñi njiitu réew mi daal di jéggal ñu génn ci kaso bi def na fa daanaka ñaar fukki at ak ñeent suñu ay ndaw daje nañoo moom fële ca quartier Fass ba nekk ca ko mu waxtaan ak ñoom dellu si ci ni mu dundee foofu ca kaso ba ak jamono ji lépp li muy def ngir mën a bokkaat ci société Ousseynou Thiam As Malick Diop. man baal naa ñëpp àq donc maa ngi sàkk aussi tamit bépp doomi aadama maa ngi lay sukk sa kanam di jéggalu di la wax ne la maa ngi leen di baalu àq yéen ñëpp. ñu doon ko duppee caatu bande a Ino Alex tëjoon ko géru dëndam ñu jéggal ko gannaaw ñaar fukki at ak ñeent yi mu tëdd ci kaso bi ci grâce présidentielle Pam Ndiaye di ñu xamal naka la xamee dund tamit boobu la grâce bu chef de l' bi ñu ma nee da nga dem. ñu wax ma ko mais dañ ko affiché ci télé bi te gars yi 24 heures sur 24 dañuy seetaan télé dañ ko affilé dañ ko affiché euh, TFM ci bande annonce bi à bas d'écran léegi di ku ñëpp ko gisandoo mi ngi taw. man maa ngi ci biti j'étais dehors à la maa ngi ci biti taxaw ci jàkk ji ci daara ji fa laa taxawoon fa toogoon mais nit ñi ñoom ñoo doon daw ak taw bi di muyal seen ay yër di daw ñëw suñu biir néeg kenn ku si nekk ñëw bëgg na ma gaañaan bon sens merci beaucoup donc vraiment Macky Sall man dama koy remercier di ko wax ne ko il m'a donné une deuxième chance je veux ca prison ga nga xam ne ni sax jàppoon nañ ne référence la ci yeneen détenu yi fa nekkoon Pape nag daje fa ak ay kilifa yu mag. Alex dafa assumer ay responsable am. Mhm. nangu ne moom dafa doon jënd ay oto. Mhm. di ko sénégaliser di ko jaayaat. Mhm. man mosuma jënd oto mosuma jaay oto mosuma dawal oto. ji bi dafa delluwaat ci prison bi. di waxtaan ñeneen ñoo xamante ni nii bokkul woon ak ñi mu bokkal problème parce que man jibi boobu noonu je le connais pas en dehors xaw ma ko ci biti je ne l'ai jamais vu ci biti mosuma ko gis. gannaaw lu ëpp ñaar fukki at ci biir kaso bi Pape Ndiaye jàpp ne lii di condition de détention yi évolué nañ bu baax a baax. muy ak l'administration pénitentiaire d'abord damay profité ci kaw loolu. di leen wax merci beaucoup di leen remercier ñoom la l'administration pénitentiaire parce que lii nii lépp en boo amee ñoom la kaso bi mi ngi defar góor yàlla. nekkoon ci kiraayu lii di Ino ba muy am fukki at ak juróom-ñett Pape Ndiaye nag am lu ko metti lool ci ndaw yu bëri yi nga xam ne nii ñu ngi buuxante ci biir kaso yi. xoolal gis na naa la benn affaire tey jii pour que senegal yëpp xam ko. Mhm. gisa genn wàllu boo yi ngay gis ñu def crime yëpp. Mhm. ñoom ñëpp sàngara lañ naan. damay faral di dégg journaliste yi di wax naan dañoo màndi dañoo tux drogue dañoo def ni mais tuxuñu drogue tuxuñu cocaïne tuxuñu brown sàngara la ñu naan bu 200 bi xaw ma Jakarta lañ koy wax. Mhm. Jakarta mhm. moom la ñuy naan. Mhm. moom la ñuy naan mu dugal leen ci ay dérives yoo xam ne dañuy def sax crime après ñëw bi ci prison bi soog seen rendre compte. sàngara bi la ñuy naan sàngara dañ ko war a jël. parce que xale yu xale xale yu ndaw yëpp yàqu nañ. te dara yàqu leen lu dul sàngara bi nga xamante dañ ko légaliser ci dëkk bi ku mu neex nga màndi ku mu neexul nga màndi lu jëm nag ci bodd gi nga xam ne nii gis nañ ne képp ku génn kaso dañ la koy def Pape nag xam leen ne waajal na ko bu baax. psychologiquement pare naa ci loolu bien avant parce que gis nga àdduna moom li nit ki di xalaat ci yow loolu kenn mënul empêcher kenn pour mu xalaatee ko. effectivement bu ma génnoon buntu kër gi léegi war a romb fii nii du ñàkk ñaar ñoo xamante ne danañu wokkante ne xoolal xam naa loolu bu baax a baax a baax a baax a baax xam naa ne loolu moom ay xaar parce que nit ñëpp bokkuñu yem te ñëpp mënuñu am benn vision bi ci yow je l'accepte. ngir nag réussir lii di réinsertion sociale am Pape Ndiaye bëgg ñëpp jàppale ko ci rawatina njiitu réew mi nga xam ne nii moom moo ko jéggal. jërëjëf Ousseynou Thiam foofu ca Rufisque dañuy dalal léegi léegi Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yëglekaay yi xëy tey jilee tiis yu ñu fanaanoo ñoom la yéen a kaay xëy yeewoo ubbi l'observateur Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifa bu Medina Baye la ñu yéen a kaay bi ne moo nelaw démb ci juróom-ñett fukkeetam ak juróom-ñett ci hôpital général bu Grand Yoff fa la noppaloo loolee ginnaaw wopp ju yàgg ju ko tëraloon ba yóbboon ko France mu doon fajo l'observateur xamal ñu it ne moom radiyallahu taala anhu Cheikh Ahmed Tidiane Niass moo ne woon ñeenteelu xalifa bu Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass nitu yàlla jàmbaari l'islam royukaay ci tarixa Tidiane lu bari ci taxawaayam ci diine ci alxuraanul karim ci jàmm journal l'observateur xëy nañu ko jukki la l'observateur yëral jukkil ñu ci mu njëkk ne ci jamono ji ñu yégée ne xalifa bu Medina Baye nelaw na booba fekk na ñu yëg faatu président CNES di Mansour Kama moom it di ku ci xeexal privé bi ci Sénégal démb ci dimanche ji ñaari fan ci route ci la génn àdduna Vox Populi nañu Medina Baye ñàkk na Papa Cheikh ñeenteelu xalifa bu Cheikh al Islam di Cheikh Ahmed Tidiane Niass na démb ci guddi ma nga dogee ca l'hôpital général bu juróom-ñett fukket ak juróom-ñett ci la tolloon Vox Populi nañu ci li ko jiitu fekk na ñu yëg génnuk àdduna Serigne Moussa Dia mi xalifa bu mbëlëxe moom it wàcc na liggéey ci bésub tabaski gi ca la nelaw les ko nañu tabaski ren gi di su ko fàtte ndax fu mu gën a mitee fa la malakal mawti dóor ne ci diggante àjjuma samedi la yóbbu xalifa bu Medina Baye ci la yóbbu xalifa bu mbëlëxe ci la yóbbu Mansour Kama ci la yóbbit góor ngom bu xel kom baas la ne ko booba fekk na mu jëlal ñu soxna Reine Marie Diakher Faye ñu di ko jooy noppee gu ñu tiis yu ñëw yokk VSD tabaski bu métti te tiis la si nekay nee nañu moom la ñu dund ci réew mi juróom-benn kilifa juróom-benn kàngam juróom benni jàmbaar ca waar wa ñu fare woon ñu génn àdduna ñu ràññee ci xalifa bu na bàyyi ràññee ci Mansour Kama Mansour Kama moomee faatu démb lii quotidien gise ci beneenub capitaine bu quitté bato bi président de la république Macky di seede ci xët mu njëkku lii quotidien ne militant tigé ci wàllu liggéey ak ci wàllum dialogue social moom la réew mi ñàkk grand place ñu secteur privé bu Sénégal ñoo ñàkk icône bu mag président Macky Sall ministre Samba Sy syndicaliste bi di Cheikh Diop Mary Teuw Niane Abdoul Mbaye ak Moustapha Guirassy ku ci nekk ci ñoom say seede ci Mansour su mi ngi ci journal bi journal beneen bu mu nekk moom Mansour Kama moo di moo xalifa bu Medina ginnaaw sëriñ Pape Malick Sy ginnaaw Babacar Touré kii def te kenn du ko dindi defati na li ko sob démb jëlal nañu Cheikh Ahmed Tidiane Niass xalifa bu Medina bàyyi jëlal ñu it Mansour Kama la tribune nañu tabaski guñul kukk la ñu dund ren ci réew mi ndax kilifa yu fi jóge xalifa bu Medina Baye góor a ngam xel kombaas Mansour Kama ak journaliste bii di ren Mari Faye ci jamonoy tabaski gi ci la ñu wujjee sunu borom borom bi ak i dogalam woppi coronavirus ji ak i lorangem journal Le feebar baa ngi def ci réew mi lu mu mën ne juróomi weer ginnaaw bi mu fi duggee ak léegi ngi bëgg a bari Libération ko bari na bu nuppi ñi corona bi rey ci réew mi bi mu fi duggee ak léegi ñoo ngi toll ci ñaari téeméeri doomi aadama ak juróom-ñeent ci diggante alxames ak gaaw juróom-ñeenti nit faatu nañu ci Sénégal ndax Covid bi la Sénégal nañu boole cekkit bi corona bi duggee ci réew mi ak léegi ñi mu fi jot a romb nañu fukki junniy doomi aadama te bu ñu moytul nag yëf yi nar naa gën a gàll ne liggéeykati kër docteur yi mu di les travailleurs daanaka tàmbale nañu ko toj yëf yaak ni mu demee lii ci journal bi gis moo di histoire buy jeex ba xamal ñu it ne ñoo ngay daaneel taax ma war koo tabaxaat tabax bi dana jël ñaari at nee ñu it danañ ci def juróom-ñaar ko gis ne gouvernement bi la mu bëggoon ca marché Sandaga ak na mu ko bëggee noonee la amee daaneel nañu marché ba te cëw jibal ministre urbanisme Abdou Karim Fofana ni ko waxe da caa jaaree sax féex ñi nekk ci fitna dëgg l'observateur yi xar yi lamb ci seeni loxo ci tabaski gran gi bi ci guuta ñu tàbbi bu leen état bi jàppalewul seen yoonu kaso taxaw na